أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci surutul borom ñu ngi ñaanal sunu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme nun ko baaxoo def ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy jël tey ñetti aaya bi iznillahi tabaraka wa taala aaya 160 161 162 ñetti aaya yooyu sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal juróom-ñaari mbir juróom-ñaar yooyu bi ci njëkk mooy almaasi tuurisul xirmaan min xayri dunia wal axira mbokki jullit yi ndeke aay yi nekk sunu kanam lim nuy jàngal bi ci njëkk mooy bàkkaar yu bari day xañ nit ñooñu di def ay bàkkaar day xañ dëkk boobu day xañ nit yooyu yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira ndeke ay bàkkaar su baree ci nit su baree ci kër su baree ci gox su baree ci koñ su baree cim réew li mu leen di xañ mooy yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira lépp luy baax lu leen yàlla doon séddi ci mbirum àdduna ak àllaaxira dootuñ ci jot ndax seeni bàkkaar yu bari loolu dinañ ko gis ci aaya yi bi iznillahi tabaraka wa taala ñaareel mooy xurmatu saddi anil islaam walaw bi suluki saain wal muamala al batil batila dinañ jàng ci aaya yi araam gi nga xam ne araam na ko beneen araam gi nga xam ne dina ko araam baare islaam asadd anil islaam dafa araam baare islaam nag ci ay comportement wala ay jëflante yoo xam ne jëflante neen la léeg-léeg ci biir doomu aadama yi ci biir nit ñi di nga gis ay nit ñoo xam ne seen jubluwaay ci àdduna yépp mooy li yàlla wax mu bañ a nekk dañuy baare lislaam ci seeni comportement ci seeni melokaan lu tax pour nit ñi bañ a dem ci diini loolu nag mbokk yi mbir la moo xam ne islaam du ko gërëm moo tax mu ne dafa araam baare islaam ci ay comportement yoo xam ne yu ñaaw la wala ay jëflante yoo xam ne jëflante neen la te l'islaam lépp comportement bu baax la loolu tax ibnu taymiya di ibnul qayim di wax lépp lu la raw ci sa diine rek xamal ne jikko moo fa manqué lépp lu la raw ci sa diine xamal ne jikko moo fa jóge ñetteel mooy xurmatu riba araamal nañ lekk riba islaam dafa araamal riba riba nag ci olof mooy ndollent wa annahu mujibun lil uquba fi dunia wal axira mbokk yi lekk riba dafay waral mbugalum àdduna ak mbugalum al'axira nit kuy lekk riba yàlla dina ko mbugal àdduna mbugal ko al'axira réew muy lekk riba yàlla dina leen mbugal àdduna mbugal leen alaaxira parce que riba baaxul yàlla daf ko tere bal sax yàlla dafa ne lekkatu riba yi man yàlla la ñuy xeexal man yàlla la ñuy geeral fa in lam tafaalu fa azanu bi xarbin min allahi rasuli yéen ñi lekk riba bu ngeen ko bàyyiwul yëg leen ne yàllaa kub yonentam déclaré nañ leen guerre mbokk yi kuy guerre ak yàlla foo jëm kon riba baaxul ñeenteel mooy xurmatu aklu amwaali naas bil baatil lekk alalu nit ñi ci neen dafa araam te tey loolu mooy loolu la société di dund soo demee Sonatel soo demee Senelec boo demee SDE boo demee ah réseau téléphonique yi soo duggee ci biir dëkk bi lekk alalu nit ñi ci neen xataa bu duggee ci tarixa yi sax ci sëriñ si dañuy lekk alalu taalibe yi te fiñ ko teg du fenn lu dul ñun ñoo leen war loolu aljanna aljanna kese moo tax gars yi daw di leen jox ñuy lekk waaw ndeysaan am na benn sëriñ bu ñu laajoon ne ko waaw wala moo tax taalibe yi moom bu ñu ñëwee fii mbirum àdduna la ñuy wax du ñu wax alaaxira mu ne foofu rek la nañ ko ba pare fii rek moo des incha allah mais fële moom rek la nañ ko moo tax gars yi amuñu problème fële fii lañ am problème moom loolu la teg seen loxo lekk alalu nit ñi dafa araam moo xam sàcc la moo xam wuruj la moo xam neexal la yépp islaam daf ko araamal su fekkee saraqa sàcc dafa araam ab jullit di sàcc alalu nit su fekkee riche la loolu ñu naan tricher pour lekk alalu nit ñi dafa araam su fekkee riche wala neexal ger loolu tamit dafa araam li ci mën a doon te lekk alalu nit ñi ci lii rek la nekk sàcc ko ki ngay lekk alalam xamu ko wala nga tricher ba lekk alalu nit ki wala ci ger nit ki bëgg a liggéey nga lànk ne liggéey boobu doo ko def lu dul mu jox la dara pour nga def ko ba waxee ñu ne loxoy kajoor day wee solo waaw loolu mbokk yi dafa araam bokk na ci ay ñuy jàng tey araamal gi islaam araamal loolu juróomeel min ahlil kitaab sulaha rabbaniyun wa zalika ka abdullah ibnu salaam wa akhirin ci ahlul kitaab am na ñu baax ahlul kitaab am na nit ñu baax ay nit ñoo xam ne rabbaaniyuun ay nitu yàlla lan li yàlla wax la ñuy def guddeeg bëccëg jaral na leen lu nekk ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ñeneen ñu mel ni moom kon ndek ahlul kitaab ñëpp bonuñ am na fa nit ñoo xam ne ñu baax lañ ay jaamukatu yàlla lañ ku mel ni abdullahi ibnu salaam juróom-benneel mooy ar rusuxu fi l ilmi yamanu saahibuhu azallat walwuqu fi l muhlikat am xam-xam géeju ci xam-xam nit ki am xam-xam ba nekk ci géej dafay indil kooku kóolute ba du tarxiis ba du dugg ci yi alagaati moo tax jàng baax nit ki bu jàngee day xam fu mu teg tànkam nit ki bu jàngee du réer nit ki bu jàngee day xam ni muy jaamoo boroomam moo tax ñàkk a jàng nekk musiba rawatina nag jàng goo xam ne ar rusuux la dangaa dem ba sax ci li nga jàng nga am ci yaqiin nga am ci kóolute nga xam ko bu baax su boobaa léegi xam-xam bi daf lay aar ci tarxiis dootoo tarxiis ndax loo wax rek am nga sukkandikuwaay foo ko teg am nga fu leer foo ko teg waaye wal wuqu fil mahlakaat jàng bi daf lay aar ba doo dugg ci musiba yi tey li ngeen di gis ci dëkk bi mu ne mu am est-ce que di ngeen ci gis borom xam-xam bu géeyu ci alquran ak sunna mu nekk ci loolu caaxaan yooyu li ngeen ci gis yëpp mooy ñooñu yonent bi noonu xafaala ka xafaalati shayir mbalit mbalit rek nga ciy gis mbalit mbalit moo tax jàng baax soo jàngee da ngay xam fi nga li ngay def ñàkk jàng nag day tax nga nekk ci lëndëm juróom-ñaareel fadlu iqaami salaa dinañ jàng ci ay ngëneelu taxawal julli fadlu iqamati salaa ngëneelu taxawal julli saxal julli yàlla nee na wal muqimina salaa fi l aaya alal madxi wa taxsiis yàlla tagg na li muy tagg ñu baax ñi lim leen njëkk a wax li ñuy def li leen tax ñu baax mooy dañoo saxal julli dañoo toppatoo julli dañoo sàmm waxtu yi kon mbokk jullit yi bu ñu tënkee juróom-ñaari mbir yi mooy nekk sunu dars tey nekk ci ñetti aaya yu nu sunu borom subhanahu wa taala di nettali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم أهلت لهم وبسيدهم وبسدهم عن سبيل الله وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما جزاك الله خير borom bi nee na mbokk yi fa bi zulmin ba tey ay dañu diñu nettali ñan diñu nettali ñan al yahud loolu moo doon suñu dar si fan yëpp ay dañul diñu nettali mboñuk mbonuk yahud ak seeni crimine criminalité gi ñu nekke woon ak seeni bakkaar yu bari gis ngeen borom bi ne fa bi zulmin ci tooñ baa bi wax nañ leen mooy baabu sabab sababu tooñ giñ may tooñ man yàlla guddi ak bëccëg ñan ñooy tooñkat yi mu ne min allazina haadu ñooñu nga xam ne dañu ne ay yahud lañ al yahud is qaalu inna hudna ilayk baat boobu lañ leen tuddee inna hudna ilayk bi ne ñun dañuy dellu ci yàlla ñu nekk ay doomu yaqub ñu tudde leen baat boobu ay yahud borom bi ne tooñ gi ñu tooñ ñan la mu ne min allazina bàyyi ko ci ñi nga xam ne haadu ay yahud lañ tooñ giñ ma tooñ mbon gi ñu barile moo tax xaram na alayhim tayibat xaram na alayhim tayibatin ma araamal ci ñoom yu daganoon ci ñoom yu bare bare bare bare bari ma tere leen ko bokk na ci ndax yàlla tere leen ko mooy léeg-léeg ab yonent day ñëw wax ne leen lii kat baax na ñu ne ko ah lii kat baaxul woon dañ ñu koo tere woon te du dëgg ndax di ko di ko su ko defee yàlla ne waa kay dëgg la sax na léegi araam na ci yéen waaw wala ñu jàpp lenn ci li daganoon ci ñoom lu mel ne nag yeeg xar yi nangam naan waaw xar mi moom bu dee nangam la ñoom diw ñoo koy lekk nag bi bu dee nangam la sëriñ see koy lekk gëléem gi bu dee nangam la ñee ñoo koy lekk yii jigéen ñee ko war a lekk wala yii góor ñee ko war a lekk di tànn lu ñu war a def ak lu ñu war ta def yenn saa yi ñu araamal res daganal fële graisse yu mel noonu moo tax yàlla mu ne tooñ giñ ma tooñ ma araamal ci ñoom lu bare bare bare xaysu harrama alayhim tayibatun kasira yàlla araamal ci ñoom yiw yu baax yu bare bare yu mu daganaloon ci ñoom mbir yoo xam ne kaanat xalaalat dafa daganoon yàlla daal leen koy tere ndax seenu mbon ndax baare gi ñuy baare yoonu yàlla ndax dëgër bopp gi ñuy dëgër bopp di lekk ger di lekk ger waaye yemuñ ci rek ci lekk ger sax mais ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moo ngi ci biir lekk neexal comme ni gars yi def di tricher borom bi subhanahu wa taala nee na ma daal di jaar ci loolu araamal ci ñoom xaram na araamal na alayhim ci ñoom tayibatin ay mbir yoo xam ne dafa teeyoon dagan yàlla santoon leen nañ ko lekk ah kullu zi zufrin wa suhumul baqara wa ganam gis nga yàlla nee na araamal naa ci ñoom lépp loo xam ne dafa am wee waaye araamal naa ci ñoom res comme resu nag wala araamal naa ci ñoom resu gàtt yi xar yi béy la wala gë wala xar la borom bi nee na subhanahu wa taala uhillat lahumu tayibaat yoo xam ne dama ko daganaloon ci ñoom xurrimat aram xaram na aramal na alayhim ci ñoom tayibaatin yu daganoon yoo xam ne uhillat lahum dañ leen ko daganaloon ne leen lekk leen ko comme dañoo mën a tooñ yàlla ne leen tere naa leen ko bu leen ko lekkati acca na ngeen ko bàyyi kon gis ngeen wax nañ sànq bi ñuy ubbi darse bi ñu ne bàkkaar yu bari day tax yàlla xañ leen yiwu àdduna ak àllaaxira ay bàkkaar su baree ci nit ci ay nit xéewal yi leen yàlla doon defal yàlla daf koy daf leen koy tere daf leen koy xañ asamaan dootul wàcce barki suuf si day wow ndax lan ndax barke dund bala yàlla di dindi ndax bàkkaar yu bari moo tax bàkkaar baaxul dégg ngeen ñi lan moo tax yàlla araamal ci ñoom li daganoon lan mooy sabab bi mooy bi zulmihim ndax seen tooñ yu bari bàkkaar yee bari moo tax mbokk yi nañ leen moytandiku ay bàkkaar yu bari baaxul bàkkaar day yàq kër bàkkaar day yàq gox bàkkaar day yàq réew waaye bàkkaar day yàq day détruire société bépp société boo xam dañoo ngemb woon di tooñ yàlla gis ngeen fi ñu mujjeeg yàlla yàlla day misaal ci alxuraan ay dëkk alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama dati limad allati lam yuxlaq misluha fi lbilad wa thamud alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna alladina taxaw fi lbilad fa aksaru ñoo ñëpp bàkkaar yi ba ñu bëree lan la leen yàlla def fa sabba alayhim rabbuka wa ka ayin min qaria bëri na ci réew atat an amri rabbiha boo xam ne dañoo féttéeru dëgër bopp ci seen mbiru borom la leen yàlla def mbugal kon bàkkaar yu bari tey tax yàlla araamal tey tax yàlla xañ waa dëkk ba yiwu àdduna ak àllaaxira yemuñ ci bi zulmihim tooñ waaye wa bi saddihim an sabilillah yemuñ ci tooñ ay bàkkaar rek mooy man duma julli kenn du fi jullee mooy man baaxuma kenn du fi baax munoon nañoo ne sax tooñ ñu bàyyi ñu bëgg a baax baax waaye ñoom dañuy tooñ ba pare ne kenn du fi def lu dagan ba pare yemuñ ci ñuy baare yoonu yàlla wa bi saddihim yàlla ne ñu jóg di baare an sabilillahi yoonu yàlla kasiiran lu baree baree baree bari wa bi saddihim an sabilillah kasiiran yemuñ ci tooñ waaye jóg tamit ne waawaaw ñun baaxuñu kenn du fi baax loolu olof yi di wax ne picc mu lakkum taat li bëggu borom mooy li am tey mooy na ngeen fexe ñëpp bon loolu nag du diine na ngeen fexe ñëpp bon na ngeen fexe mbon bari ba ñëpp yem waddu law takfuruun kama kafaru bëgg nañu ngeen weddi comme ñoom nu ñu weddee fa takunu sawa ngeen yem yemuñ ci baare yoonu yàlla wedd tooñ yàlla rek waaye baare yoonu yàlla aussi soo doxee jëm ci yoonu yàlla ñu daal ñu daal lay dévier daal lay jàdduloo indi ay mbon ba kenn caratul jaar ci yoonu yàlla yemuñ ci loolu mbokk yi waaye wa axzihimu riba yemuñ ci tooñ yemuñ ci baare yoonu yàlla waaye tamit di lekk riba wa axzihim ak jël ar riba mooy ndollent baatu riba jàngoon ngeen ko qubuluhu wa taamulu bihi wa aklihi nan la ñuy lekkee riba mooy lu njëkk mooy dañ koo nangu ci biir société bi société bi day lekk riba yemuñ ci nangu ko waaye jëflante ko encore seen biir yemuñ ci nag après lekk ko tey dama leen di laaj ñett yi am na ci sunu réew wala amu ci nangu nañu Sénégal nangu nañu riba wala nanguwun ko nangu nañ ko tontu bi mooy waaw ñaareel bi mooy wa taamulu bi jëfe ko dañ koy jëfe ci biir dëkk bi ñetteel mooy dañuy lekk riba nag kon ndeke loolu mooy nangu riba riba du ñun dey lekkuma riba man dey duma liggéey ci riba déedéet yow boo nee duma lekk riba yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne riba dina tas ba ku lekkul riba tamit di nga naan ci pëndëx bi di nga di nga ngelaw li dina dina naaw jël riba daal di koy sarax ci sa gémmiñ nga lekk ci poussière bi loolu mooy riba ni mu bare tey est-ce que Sénégal nit mën na fi dund sans lekk riba est-ce que mën na am lu jafe ngo kon banu Israël mbokk yi li tax yàlla araamal li mu daganaloon ci ñoom bokk na ci tooñ seeni bakkaar yu bari waaye bokk na ci baare yoonu yàlla waaye bokk na ci bokk na ci dégguma li ngeen di wax de lekk riba wa axzihimu riba jël riba te dañ ko tere woon yonent bi alei salatu salaam nee na bi may rañaan dem laylatul usriya bi guddi gañ ma rañaane mu ne marartu bi qawmin wa mu ne ay nit kullama araadu an yaqumu saqatu saa yu bëggee jóg daanu ñoom nit ñooñu lu tax ndax seen biir yee rëy ba toll ne néeg seen biir yi dañoo ngand ba toll ne ay néeg saa ñu bëggee jóg daanu yonent bi ne jibril man haula mu ne ko haula illazina yakuluna riba min ummatik ñi ñoo doon lekk riba ci sa xeet mbokk yi jàngeen ci sab mubiqat bàkkaar yu rëy yi juróom ñaar yi bokk na ci ar riba riba baaxul kenn ku nekk ci ñun na fexe ba dundam lim ci jot di lekk da mooy tëndiku riba ak lu mu neex neex neex ak lu mu bari bari bari bari mooy tëndiku lekk riba képp kuy lekk lu araam soo ñaanee yàlla yàlla du la may kuy lekk lu araam soo tàllalee yoxoo yàlla du ko nangu jàngeen xadiis ba Muusa nee na gis naa waa joo xam ne ba muy ñaan yàlla poqataan yaa ngi feeñ ndax lan ndax ni mu yëkkatee loxo yi di ñaan waaye lan lañ wax ci moom annaa yustajaabu lahu naka lañ koy nangolo li muy lekk dafa araam li mu sol dafa araam fi mu toog dafa araam li ko wër dafa araam naka la ko yàlla di nangulee yonent bi nee na kullu maalin nabata ala haraamin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam safara moo ci yey safara safara million yoo xam ne yëpp dafa araam xam nga lu ci yey taal beneen almet rek teg ko ci dem sa yoon man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salaata arbaina yawman képp ku lekk benn aleykum salaam wa rahmatullah képp ku lekk benn dank bu araam dank soo jullee 40 jours yàlla du ko nangu 40 jours boo ko jullee yàlla du ko nangu boo lekkee benn dank laa wax benn dank kilo ceeb bi dafa araam kilo dafa araam ñu toggal la ba mu ñor tegal la nga dank ci benn dank nga lekk ko fekk dafa araam 40 jours yàlla du la nangul julli léegi nag kilo bi boo ko doon def ay dank dank dank dank kon ñaata jours ngay toog ñu doog laa nangul julli bu dee saaku nga ci jënd nag bu dee ay saaku nga ci jënd nag allahu akbar mbokk yi lekk lu araam baaxul ñii gis ngeen li tax yàlla xañ leen yiw mooy dañuy lekk riba borom bi nee na waqad nuhu anhu tere woon nañ leen ko lan mooy riba kon gis nga diine lépp lu bon diine yépp a ci bokk yem yonent yépp ñoo ci ànd tere lépp lu bara lépp lu araam moo tax démb Cheikh Tidiane bi tey posé na ma benn question ci dars bi ma doon def RDV mu ne ma Sénégal est-ce que bu ñu teree sàngara am na fi état laïque la état laïque am na fi ñu dul jullit mais ñi dul jullit ñu ci diine lañ nekk am na diine bu ñuy wuyoo walla xataa ñooñu sax seen diine boobu daf leen tere naan sàngara amul benn diine bu nangu sàngara amul benn diine bu nangu riba yépp dañ ñu koo tere waqan nuhu anhu alquran bii nii aaya yi di wax ñan lay waxal banu israil mais yàlla nee na tere naa leen lekk riba mu ngi nii waqan nuhu anhu dama leen ko tere waaye yemu ci mu ne wa aklihim amwaala naas tere naa leen lekk riba mais tere leen lekk alalu nit ñi daanaka ñun tey nag jikko yahuud yi lañ yore li yàlla tere woon yahuud yi moom la jullit yi di def tey bàkkaar yu bari baare yoonu yàlla lekk riba ak lekk alalu nit ñi loolu moo am Sénégal nangu ngeen ne Sénégal dañu dañoo bëri bàkkaar wala nanguwu leen loolu du jeex xoolal tey jii ci góor jigéen lañ nekk ak yu kenn xamul chaque jour nga dégg lu bon lu ñu def chaque jour lu am am benn mbon gu ñu indi bu bees te nit ñi nit ñaa ngi oyo oyofal rek di yolomal gis ngeen góor jigéen gii ngeen gis ni mu tasaaroo léegi ah bu yàgg ba yéen ñi nekk fi ay mag ni góor jigéen garaawee léegi bu njëkk ba daa nga dégg góor jigéen waaye amul woon importance mais xool leen Obama bi mu fi ñëwee léegi ni góor jigéen bëree koñ boo dugg ñu ne góor jigéen yi fii mooy seen siège bi mu fi ñëwee léegi laa wax gis ngeen góor jigéen ni mu bare waaye xam ngeen fu mu jëm su waa Sénégal nasaxee su waa Sénégal alko yambare yaafuus topp topp topp seen biir keppaar yi seen biir kër yi tëdd ci matla yi di nooyi di nooyal wallahi bisa ngi ñëw dinañ ko wote assemblée légaliser ko lii ma wax nag yéen ñëpp note note leen ko datu tey suñu yaafuusee ci légaliser ko lañ jëm yëpp ay ay sondage la rek ay test la quoi ay test ay yëngal da ngeen xool gars yi fu ñu toll bis bu baree ñu ut ay góor jigéen ba ñu bëri bis ni ngeen di toog rek ngeen dégg ñu ne góor jigéen ñi dañuy def dañuy def marche place de l'Obélisque ngeen jombi nag waaw waaw ngeen jombi nag du xam ngeen da ngeen toog fi ngeen dégg góor jigéen ñi dañuy marche États-Unis wala wala dañuy marche France du ngeen koy dégg fii la jëm fii la jëm parce que ay buntu yu ñu leen di ubbil la mbokk yi lu ko waral mooy mbon gu bari mbon baaxul saa yu ñu ubbee buntu bon mbon gi day tasaaroo di sotteeku gis ngeen ñii yàlla mu ne fa bi zulmin min allazina haadu bi yàlla waxee bàkkaar yi ba pare lan la wax daf ko lim baare yoonu yàlla lekk riba lekk alalu nit ñi wa aklihim amwaala naas bil baatil lekk alalu nit ñi ci neen tey loolu moo am ci réew mi soo soo duggee ci tali bi taximaan yi lan la ñuy jooy kalandoo yi lu ñuy jooy commerçant yi lu ñuy jooy douane magistrat yi lu ñuy jooy avocat yi fépp la ger gi nekk xattaa sax xattaa sax ci biir diine ji ger gaa nga fa parce que li tax sunu sëriñ si noppi olof yi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa gerte taalibe yi bu dee dañuy indi lu bon taalibe bu jékki-jékki indi benn 4-4 wala indi benn Kia ni maa la ko jox taalibe boobu lu mu defati kenn ko wax benn waay ndeysaan dafa tooñ ba pare mu xam kii àtte kan la mu dem ñaw benn yére bu rafet grand mbubu ak bu ko jiit jiital bi ak tubéy bi ak mbax ne mu ne waa ji man maa la indil mbax ne mi ak mbub mi incha allah bis booy àtte nag boo may àtte maa diw na nga sol mbub mi waa ji daal di koy déggal dem sol ko ñëw toog suba ba ngoon muy wax rek waaw waxal yow lu ngeen jote waa ji wax mu ne yow waxal waa ji wax suñ ko nee àtteel mu ne mbub mi moo ma ko teree wax mbub mi mbub mi moo tax mënu maa wax dëgg bi mbub mi olof yi nee nañ suñuy wër dëgg ci pénc suba ba ngoon dëgg bi feeñul kilifa moo fa juum dégg leen wax bi de dañuy war dëgg ci biir kër gi dëgg gi la ñuy seet dafa am ñu fi xeex ñuy xool fan la dëgg bi nekk ñu koy wër suba ba ngoon gisuñu dëgg bi kilifa kër gi moo juum te kenn ñeme ko wax yaa juum loolu moo am Sénégal looloo tax sunu kilifa yi lu ëpp ci lu ñu noppi wax naa ko barki démb ci émission bi góor jigéen ñëpp ay taalibe lañ d'accord ngeen wala góor jigéen ñi ay taalibe lañ ah ñoo dàq joxe ay taalibe lañ góor jigéen ñëpp ay taalibe lañ taalibe diw taalibe diw taalibe diw ñoom ñëpp dañuy dem ci affaire yi suñu wootee ñu daw dem ñooy nekk ci kanam ñëw njëkk a joxe moo tax sëriñ bi du leen ne ah duñ wax dañuy noppi ba pare dañuy nopp ci yu garaaw yooyu ba pare di marche di yuuxu ci yu amul fulla amul fayda waaw tey jii Sénégal fii mu tool waa ji ne ma yow da nga bëgg yow li nga bëgg di dafa garaaw quoi ma ne ko suñu kilifa yi dañoo war a wax parce que mbon buy buy buy détruire ay nit am ñu mun a fatt mbon gi robinet baa ngi nii ubbeeku di sotteeku koñ bi yëpp dañoo nar a inondé mbokk yi ñun ñii ñëpp lan mooy suñu warugar ndax jël ay saaku di sol suuf di baare ndox mi xanaa xamuloo ndox bu jógee nii ñu baare ko fii da ngeen defe ne ndox mi dem na day wëri ngeen baare fii mu wëri ñu baare nii mu wëri ñu baare nii mu wëri ñu baare ñeenti côté yëpp ci suuf si lay génnee pël ci kaw su boobaa loolu ñu dëkk gunaas xam nañ li may wax da ngay ut ay saaku rangale kër gi yëpp nga jékki-jékki nga gis ndox mi di dajj kawe yi di génn naan tëf maa ngi nii de billaahi wallaahi taalaahi ah billaahi ndox mi ci digg néeg bi lay génnee te xam nga lu garaaw boo ko ŋaccee su génnee benn siwo nga ŋacc ko paan mooy génn nga ŋacc ko néeg bi yëpp fees ndeysaan gis nga loolu mooy lu bon lu bon suy ñëw xam nga lan moo jaar robinet bii di sotteeku dañuy dem ba ci robinet ba kaste ko fa wala fee ndox mi arrêté waaye ah waaw robinet bi dañ ko bàyyi mu sotti man moom incha allah du dugg sama kër dinaa ko baare ba yeneen kër yi fees su yeneen kër yi feesee sa kër gi la jëm loolu mooy lu bon dañ ko war a freiné dañoo war a dem ba lu foon fu bon bi di bàyyee ko ñu dagg ko foofu bu dee am pax la ñu saañ ko bu mu génnaat waaye bu fekkee ku nekk ci ñun da ngaa toog naan sama doom bokk ci wala man bokkuma ci gis ngeen góor jigéen yi ngeen di gis am na ci ay doomu sëriñ am na ci ay doomu kilifa am na ci ay laa ilaa ñoo xam ne buñ la waxoon ñii seen papa wala seen yaay rek sa yaram daw kon gis ngeen yow ni nga baaxee wala sa waa kër ni ngi leen sàmmee ñu baax ëllëg ak si biir bu ñu la gisatul wala ñu dem leneen li mun na leen a këf kon lan mooy solution mooy lu bon li nañ ko fi jëlee ba kenn du gis bon cigarette buñ ko indi woon ci dëkk bi ndax nit ñi dinañ tux ah ku gisul looy tux nooy tuxi sàngara si buñ ko indiwul woon ndax nit ñi danañ naan ku gisul nooy naan nooy naane loolu la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi fi drogue bii ñuy wax nii drogue bii ñuy wax nga xam ne drogue benn benn kudd kudd ñaata lay jar xaalis bu dul jeex da ngay gis benn kudd ñu ne cinquante mille loolu xam ngeen ne miskin mënu ko fee indi kon ngeen ñoo ko fi dugal mu ngoog kon mbokk jullit yi loolu la nu yàlla wax ne lekk alalu nit ñi dafa araam wa aklim amwaalin naas bil baatil yàlla nee na nanu bàyyi lekk alalu nit ñi tey ci biir Sénégal nit ñi lekk alalu nit ñi dafa ëpp ñëpp ay lekk nag ñëpp ay lekk ay ay tic tac di lekk alalu nit ñi te lekk yooyu yëpp bil baatil ci caaxaan lañ ko teg ci neen borom bi nee na wa atad naa xaroo naa mooy dencal naa lil kaafirina ñeel ñi ma weddi minhum ci ñoom azaban mbugal aliman bu méttee métti gis ngeen aaya bi bàyyi leen ci xel yàlla lan la wax wa aatadna lil kafirina minhum kon du ñëpp xataa kon ci ahlul kitaab am na ñu baax yàlla nee na ñi ma weddi ci ñoom laa dencal mbugal ñi ma weddi ci ñoom kon ñi weddiwul mbugal mi ñoom génn nañ ci voilà léegi xataa ahlul kitaab am na ci ñoo xam ne yàlla du leen mbugal lu tax wa aatadna lil kafirina minhum lenn ci ñoom ñi weddi yàlla yàlla nee na dencal naa leen azaban aliman mbugal mu metti kon du ñëpp ñu mel ni abdullah ibnu salaam ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñooñu bokkuñu ci lii lu tax ñoom bokkuñu ci ñuy weddi yàlla tabaraka wa taala kon lan ngay dégg ci mbir mi mooy ku weddiwul yàlla yàlla du la mbugal yow man xiyam waaye mbugal gi buy wàcc fii ci àdduna daf lay laal de loolu lañ la fattaqu fitna fattaqu fitnatun laa tusibanna allazina zalamu minkum xassa wala fi nee na ñax ñax bu tooy ñax bu waw ñax bu waw day lakk bu tooy gis nga ñun buñ toogee ay nit di mooy yàlla nekk góor jigéen ñun waxuñu ci ñun ah sama yoon nekku ci waaw man damaa maandu nit day maandu ñu dégg naa benn njabarkat ci télé bi ci télé bi de mu naan waaw ñu laaj ko comme moom njabarkat la ñu ne ko ñii théâtre de ñoo koy laaj ñii théâtre ñett ñoo indi théâtre xaw ma émission bi nu mu tudd nag ndax accidentellement laa ci fekk ñett ñi théâtre daal xàmme naa leen moom ñoo ko doon laaj ne ko benn waaye ne ko yow waaw looy wax ñooñu di wër guy yi di rendi ay xar di sangoo deret looy wax ci ñoom mu ne dama ci maanu ndax awma ci xam-xam war na dëgg parce que bu waxee loolu du dëgg ñooñu tam ne ko li nga nekk du dëgg mu ne dama ciy maanu su ko defee ñooñu tamit bu ñu dégloo ñu ne suñ leen woowee yéen lu ngeen xam ci waa ji ñu ne ñun tam dañuy maandu ah noonu la di mbokk yi ndax wër guy rendi ci ay xar sangoo deret diine nangu na ko diine nangu ko ba pare moom mu ne nitu diine la mu ne damay maandu ndax loolu dama ciy maandu ndax awma ci benn xam-xam ndax nit moom lu mu amul xam-xam wa waru koo weddi ndax ñooñu li ñuy def xaw ma fu ñu ko teg ci kufru lañ ko teg ci weddi yàlla nekk kéeféer moom ak ñooñu ñëpp li ñuy def dafa xaraam ñoom ñëpp li ñuy def dara baaxu ci islam daf ko dàq waaye li ma bëgg a leeral fii rek li yàlla wax mooy ay nit di def lu bon yéen ngeen toog ne ñun bokkuñ ci su mbugal mi ñëwee ci àdduna yéen ñëpp la yàlla di rey yéen ñëpp lay laal waaye bu ñu demee àllaaxira nag wal mu'minu ala imaanihi wal munaafiqu ala nifaqihi su mbugal di wàcc ci àdduna ñëpp di def lu bon mbugal mi ñëpp lay laal gis nga tey su asamaan si doon wàcc suñu kaw da ngeen yaakaar ne asamaan si danaan day taxaw naa non kii day julli du ma ko laal kii du julli naa ko laal déedéet léppay daanu doo fëm ñëpp dee suñuy dekk yowmal xiyaam nag ñi gëmoon yàlla dekk jëm aljanna ñi weddi woon yàlla dekk jëm safara yàlla yonent naan yu ba as kullu abdin ala ma maata alayhi fal muminu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi nit ki yowmal xiyaam ku nekk ni nga deewee noonu ngay dekkee ku gëm yàlla dekki jëm aljanna ku gëmul yàlla dekki dem safara moo tax mbon bu ñu ko gisee nañu wax dégg ngeen xadisu jibril yàlla waxoon na jibril demal dëkk sàngam nga alag leen jibril ne tëll delluwaat yàlla moo ko gën a xam de mais mu dellu yàlla mu ne ko jibril mu ne ko yàlla foofu dafa am ku baax ku fa nekk ku baax a ngi fi lan la ko yàlla wax ibda minhu demal nga tàmbalee ci ku baax kooku jibril tiit ni ko yàlla lu tax mu ne dafa gis ñu may tooñ kanamam soppeekuwul dafa gis ñu may tooñ kanam gi changé wul merul waxul ah xoolal sunu gaa yi ñoom yëguñu ko sax yëguñu sax gaa yi ngi tooñ yàlla ndax ñoom xamuñu lu xew ci société bi imagineel koo xam ne kilifa diine nga xamoo lu xew dëkk bi xamuñu lu xew yenn saa yi sax duñu xam ne jant bi génn na yenn saa yi duñu xam ci guddi lañ nekk te yow nga ne yaa jiite jullit yi yonente bi alayhi salaatu salaam nu mu meloon bu ñuy julli mu ngi ci sàppe bi ci kanam ku dugg ci jàkka ji da nga ko fi fekk suñuy jihaad mu ngi ci kanam bu ñuy jàng mu ngi ci kanam lu ñuy def mu ngi ci kanam waaye fii nag da ngay wax ñu ne la weer ba at ba at benn yoon lay génn sëñ bi du nit ak a garaaw ñu ne billaahi at bu nekk benn yoon lay génn gaa ñu ne allahu akbar ya jëf waay waaw da ngay dégg sañu la ren sax génnul waaw mii yow nga war a wax ak nit ñi war a defar dëkk bi ñu ne doo génn moo tax yëf erreur la ñuy def yu garaaw yu garaaw a garaaw waaw moom du wax du gaaw a wax ah war nañu wax de war nañu wax war nañu génn dëkk bi yaa ngi dem de kilifa yooyu war nañoo wax war nañoo génn dëkk baa ngi dem mbokk yi dëkk bi mu ngi yàqu gisu leen mbon gi ni mu gën a sottee ko te te mbon googu ñun cumbur yi munuñ ci dara ñun ñi dërëm lañ ci mënul mag ñi rek kilifa yu mag yi rek ñoo ci mën dara lu leer laa leen wax nag waaw ñoo ñoo ci mun dara ñoom kenn ñoo ci mun dara mbokk yi mbokk yi yonent yàlla nee na tabaraka wa taala lakin rasixuuna fil ilmi ñi nga xam ne dañoo sax ci xam-xam ndeysaan dañoo géeju ba seen dënn yi seen bopp yi seen tànk yi ne kenn fi maarifatillahi ci xam yàlla wa shariatihi ñu xam sharia yàlla mim mim man ci ñi nga xam ne ulumuhum raasixa seen xam-xam dafa sax fi nufusihim ci seen bopp laysa lahum zanniyaat njoortu wuñu ah man de yaakaar naa foog naa defe naa déedéet ñi luñ la wax rek ala yaqin ci lu leer lañ ko teg yàlla nee na ñii war raasixuuna fi l ilm ar raasix fi l ilm mooy ku géeju jàngeen ci surat ala imran yàlla mu ne li muy wax aaya mutashabihat raasixuuna fi l ilm yi ñoom suñ demee ci mutashabihi lu ñuy wax yow yàlla ñun gëm nañ lépp gis nga duñ fa nekk naan waaw mbir mi moom déedéet ndax ñoom am nañu xam-xam ndeysaan xam-xam googu moo tax seen conscience tranquille moo tax seen xel leer moo tax seen tànk fu ñu ko teg kenn du ko xool naan ah déedéet te xool leen sama xool leen nit ñi tey ñi xool leen ñi ñu topp fii tey est-ce que ay raasix fil ilmi lañ ay nit ñoo xam ne sharia xamuñ ci dara da ngay dégg sax ñenn ci ñoom naan man de alxuraan xaw ma ci lu dul lool di nuroog neuf lool di nuroog neuf laa ci xam waaw ñeneen ñi alxuraan xamuñ ci dara boo waxee ñu ne ñun topp ñu sharia ñun suñu yoon ci sharia bu jullit ne sama yoon ci sharia léegi kon yow est-ce que war ngaa warati ngaa wax sharia mooy mooy mooy mooy yàlla sharia mooy diini sharia mooy alquran sharia mooy yonent kan moo wàcce sharia bi du yàlla ay atte yàlla nga ni sama yoon nekkul ci sama yoon nekkul ci li yàlla wax waaye ñii ñoom yàlla muccal na leen ci loolu lu tax parce que xam nañ ne ñoom lii yëpp ci yàlla la bàyyee ko moo tax yàlla tagg leen ne wa raasixuuna fi l ilmi ñi géeju ci xam-xam ashaabul qadam assaabit borom tànk yu ne keng ci xam-xam yi ñii wal muminuuna ak way gëm yàlla yi yuminuuna gëm nañ bi ma unzila li yàlla wàcce ilayka ci yow wa ma unzila ak li yàlla wàcce min qablika li la fi jiitu woon gis nga de soo demee ci ahlul kitaab ña fa nekk arraasixuuna fi l ilmi ña fa gëm yàlla ñoom ñëpp gëm nañ li yàlla wàcce ci muhammad alayhi salaatu wasalaam ak li yàlla wàcce woon démb ci isa ak muusa ku mel ne abdullah ibnu salaam wa baadul ulama min al yahud al madina waaw yàlla subhanahu wa taala tudd na leen ngir def leen istisna watte leen set génne leen ci yéeféer yu bon yooyu wal muminuuna way gëm yàlla yi yuminuna gëm nañ bi maa ca la nga xam ne unzila wàcce nañ ko ilayka ci yow lan lañ wàcce ci muhammad alquran wa ma unzila ak li yàlla wàcce min qablika te mu jiitu woon la fi mooy lan tawraat ak injil ak zabur gis nga moo tax nit su gëmee tawraat gëm injil day gëm alquran soo gëmee alquran da ngay gëm tawraat gëm injil ndax yooyu yëpp fan la bàyyee ko ci yàlla moo tax bi ñuy laaj benn borom xam ne ko waaw actuellement nii fii nu toll tawraat ak injil moom lan moo ci taxawaayu jullit daf koy weddi wala daf koy gëm mu ne jullit ginnaaw bu mu gëmee alxuraan day gëm lenn li nekk ci tawraat ak lenn li nekk ci injil waxu yàlla la ndax nag des na fa ba tey de yàq nañ nag waaye waxu yàlla des na fa nag la fay waxu yàlla dëgg mu gëm ko ci tawraat ak injil waaye nag du bokk gëm lépp nag ndax am na fa ay yàq yu ñu wëlbati ay yàq am na fa ay yàq mbokk bi tuuboon vendredi bële rumaneel ndeysaan mi ngi wax mu ngi nettali mu ne moom gëstu na tuuti ci bible bokk loolu bokk na ci li ko tuubloo mu ne bible bi boo fa demee di nga ko fekk turu yonent bi ñu tuddee ko fa nangam ci roma ci ci seen làkk ñoom romain foofu mu ne loolu lay gëstu di gëstu di gëstu ba bi mu demee Espagne mu dajeeg ay jullit yu jóge Tunisie mu leen di laaj ñooñu ne ko loolu kay mu ngi ci sunu alxuraan ñooñu daal di koy won mais boobu yëpp tuubul mais gis nga yàlla fu mu dogalee mu tuub mooy Sénégal loolu bokk na ci waa ji lim ñu doon nettali sunu borom ne ginnaaw ba mu taggee ñii mu daal ciy teg wal muqiimiina salaa ak ñi nga xam ne dañuy sax ci saxal julli mbokk yi julli liñ ci wax mooy ñu saxal ko iqaamati salaa te julli dañ koy taxawal dañ koy saxal dañ koy waajal dañ koy préparer démb bokk na ci sunu xutba aaya bi inna salata tanha anil fahsai wal munkar lu tax boroom xam-xam bi dane nu salli wala nattaqi dañuy julli te ragalunu yàlla te julli fu mu yóbbu nit mooy julli fan la war a yóbbu nit mooy ci mu am ragal yàlla ndéem suñu xutba jumaa am na solo de xam nga ci biir xutba bi dama ne keroog dañuy xutba fii jumaa benn waay sëlmal ne sama portable ah mu góor gi nee na diggante bi mu wàccee ak bi muy julli fii ñaar rakk daal ci la portable bi dem ñu sëlmal pare benn waay ne ma am portable bi dama koo for ma xam ne kon xutba bi jàll na kon kooku dafa dégg loolu dama sëlmal rek waa ji ne ma am portable bi dama ko for ma jël portable bi dugg ci armée li borom woo ma ma ne ko maa ngi ci armée li bàyyil ba ma ñibbi ma ñëw sama kër ñu julli takusaan ba pare mu ñëw jël si ko waaw loolu mooy iman xoolal nga julli si jumaa ba pare fal portable jaama comme nii dars comme nii nit ñëw dars gars yi teg portable yi nga fare rek jël bi ci gën a rafet dugal sa boos fay génn sànni pis bi yow la ursi woon dars ki ñëw jumaa julli si gis portable jàmbur ci biir jàkka ji ne ko cas dugal ci poosam ñibbeek moom wala ay dàlli jàmbur wala saaku jàmbur ba pare ñibbi naa ne wu gars yi tey xéewal bu rëy la am xéewal loolu xéewal la ah kooku est-ce que julli gi mu julli jëriñ na ko julli dafa ñëw pour ñu baax julli daa ñëw pour ñu baax julli dafa ñëw pour ñu bàyyi lu bon julli dafa ñëw pour changer ñu moo tax waa ji ne nu salli wala nettaqi dañuy julli te duñ ragal yàlla nit ki buy julli dërëmu nit du ko lekk fistunu nit du ko lekk fistunu nit du ko laal fekk yaa ngi julli léegi nag xool leen suñu julli tey est-ce que tere nañu def lu bon loolu nag moom mooy wal muqimina salaa ñiy taxawal julli julli daf la war a changer su la julli changé wul dara mënatulaa changé nit ki bu jullee baaxul su demee màkk du baax nit ki bu jullee baaxul su ajee du baax nit ki su jullee baaxul bu wooree koor gi du baax koor gi mooy tax julli gi mooy tax yëpp baax waaw jullee tax sa lépp baax moo tax moom la ñuy njëkk a xool yowmal xiyaam moo tax yonent bi moom la mujjee dénkaane jaamu yàlla yëpp biñ koy jox yonent bi fan lañ ko ko joxee bi ko biñ naan yonent bi nañu seede na yàlla kenn la fan lañ ko ko waxee biñ koy wax nañu woor fan lañ ko ko waxee biñ koy waxee nañu saraxe joxe azaka fan lañ ko ko waxee biñ koy wax nañu aj màkka fan lañ ko ko waxee biñ koy wax julli fan lañ ko ko waxee kaw asamaan waxuma waxuma yonent bi toog saaba yi toog malaaka yi toog déedéet yàlla rek rek rek ak yonent bi kenn fekkewut hatta jibril li muy foor foor fekkewul bi yàlla di jox yonent bi julli ndax julli ni mu màggee yonte bi mu ñëwee ba ci yàlla bay ñibbi yàlla mu ne ko xaaral nga yóbbul sa xeet kado kado bi gën a rëy bi nu yàlla jox mooy julli pour nu baax pour nu baax kon dana jaadu mbokk yi ci ñun ñu xoolaat sunu julli yi ku nekk na xoolal sa bopp ndeysaan Umar ibnu Abdul Aziz dañ ko ne yow gis nañ booy julli rek da ngay dagg aaya yi booy jàng alxuraan soo ne bismillahi rrahmani rrahim da ngay noppi alhamdulillahi rabbil alamin nga noppi lu waral loolu mu ne yàlla mooy wax ak man maag yàlla ñooy wax yonent bi nee na nit buy julli mu ngi wax ak yàlla yàlla di wax ak moom yàllaay wax ngay tontu su doomu aadama ne bismillahi rahmaani rahim lan la yàlla di wax su nit waxee alhamdulilahi rabbil alamin lan la yàlla di wax xamadani abdi xamadani abdi sama jaam bi de sant na ma allahu akbar su ne arrahmani rahim mu ne majjadani abdi ay waay waay sama jaam baa ngi may bàkk waay mu ngi may tagg su waxee ba ca ihdina siraat al mustaqim mu ne lii nag moo doxoon sama digganteeg sama jaam bi wali abdi ma saala sama jaam bi lu mu laaj nag ñu jox ko mu ne loolu tax du ma ko yàkkamti yàlla may wax ak yàlla du ma yàkkamti ndànk laa koy def wanaa loolu mooy julli bu baax am na riwaaya yonent bi ne salli salaata mutawaddi booy julli jullil julli kuy tàggatoo mbokk yi ñun ñu ñëw tafsir tey kenn ci ñun boo kàbbaroon gee allahu akbar nga kàbbar rek malakal mawtu ñëw taxaw ne la boo sëlmalee da ngay dee de gee googu noo koy jullee benn ndax yéex rek la di nga neexal ak nan di nga toroxlu ak nan di nga jooy ak nan di nga ragal ak nan ndeysaan xoolal yëpp nga wax nag moo war a nekk ci julli gi yii yëpp ñu wax nii moom moo war a nekk ci julli gi waaye ne allah akbar jaddi jaddi di jaale yàlla ayow tay ko wënda ngay def wala ceinture noire nga kën fu ah ne këcc sa kanamu sa borom loolu jaadu na ne këcc sa bopp yëkkati say mbagg moo tax doy mu doy waar yone salli salaata mutawaddi jullil julli kuy tàggatoo koo xam ne tey malakal mooti bu la ne woon asalaamaaleykum mu ne boo paree julli da ngay dee de boo ne asalaamaaleykum rek da ngay dee mbokk yi ndaw julli gu rafet allahu ak ndaw julli gu gudd ndaw julli bu ñu jàng jàng bu neex ndaw julli bu ñu toroxlu ndaw julli bu ñu jooy ndaw julli bu ñu oh lépp ngay gis waa ji def ko ci julli gi dara tarawa lu day dee rek waaye léegi dee ñëwul rek kërëb kërëb asalaamualeykum waaw saa yi gaawalal affaire bi de rendez-vous bi ah rek tak te gaaw rek tak waaye nañ ko dóor mu daan waaye léegi sax gars yi dañ naan ku bañ sa station monté jàkka rapide ngay dem waaw jàkka rapide ku bañ sa station monté fa ngay dem suñ demee ba julli ba ci jàkka yi ñu tuddee leen ay jàkka rapide jàkka rapide nga gis ay jàkka ñu ne jàkka ji jàkka rapide la ndeysaan am na sunu benn nijaay dafa ñëw sama kër di ma seet foo jëm ma ne ko damay julli ji jumaa mu ne fooy jullee ma ne ko fee mu ne foofu jumaa yi ibaadu la man fële laa jullee mu dem fële ñu julli ñëwaat daje ci kër gi ma ne ko naka seen julli mu ne nodd gi ñetti nodd yi ak xutba bi ak julli bi yëpp deux minutes la ma ne ko ah mu ne ma fii kay dootuma fi julli yow kay su ma xamoon ma topp la ma ne ko déet ah boo dëkkee boo ñëwee ci koñ xamoo fa dara da ngay laaj waa dëkk ba wallahi moo ma ko wax de mu ne ma ñetti nodd yi ak xutba imaam bi ak julli gi yëpp mu ne ma deux minutes wala loolu nu mu grave danañ yàlla gindi julli mbokk yi dañ koy sàmm dañ koy taxawal yàlla ko wax yàlla tagg na ñiy taxawal julli wal muqimina salaa wal mu'tuna zaka yàlla nee na ak ñi joxe azak gis nga tey benn borom xam-xam démb damay liir ay waxam mu ne saa yoo gisee benn millionnaire benn milliardaire ci société dafa lekk alalu miskin yi moo tax mu nekk milliardaire alalu miskin yi la joxewul waaw alalu miskin yi la joxewul moo tax mu nekk milliardaire waaye buñ joxoon miskin yi li war ci alal jooju kon benn milliardaire du am yàlla li mu wàcce ci xéewal mbokk yi doy na sëkk mais nit ñi ñoo ko organisé wul da ngay gis benn waay boo xam ne nee nañ ñaata denc na ñaata milliards yenn saa yi sax du ñu wax denc na milliards ay milliards dañ naan milliardaire la milliardaire ndeysaan yenn saa yi nga dégg ñu ne multimilliardaire da ngay gis dëkk bi ñu ne ñi ëpp alal allahu akbar ba ci réewu jullit yi ñu bañ a joxe azaka yàlla bi tabaraka wa taala xam ngeen ñu dul joxe azaka yowmal xiyaam yu leen yàlla def seen alal jooju ñu amoon moom yàlla def faire à passer di leen ko passé yowmal xiyaam naan leen haza ma kanastum li anfusikum li ngeen dencoon mu ngi ne acca ñam leen yowma yuxma yowma yuxma alayhim ah oustaz iqra lana al aya allahu akbar borom bi nee na bis ba nga xam ne dañuy paase yow ma yuxma dañuy paase la la ñuy paase seen xar kanam ya mbokk yi xool leen faire à passer ñu jël ko jaaral teguñu ko ci mbàjj mi de teguñu ci ganilaa bi teguñu ko ci mbasin bi fan lañ ko teg ku nekk imaginel image boobu sa kanam bi ñu teg ci faire à passer faire à passer bi fan lañ ko jëlee ci biir jahannama ñu ne ko cas aller retour allahu akbar kanam googu lu fay des ba pare xam nga lu leen lu leen lu leen di wax ñi koy def lan la leen di wax malaaka yi leen di mbugal lu leen di wax haza ma kanastum li anfusikum lii ngeen dencoon dajale ko nag di nay aca ñam leen ñam leen allahu akbar kon ndekki azaka dañ ko war a génnee yàlla subhanahu wa taala continuer ak ñeneen ñi mu ne wal muminuuna billah ak ñi gëm yàlla gëm yàlla al iman billah moom mooy nuxtatul awal point bu njëkk ci arkaanul iman gëm yàlla léeg-léeg ñu ne soo ne al imaanu billah gëm yàlla rek waa ji daal di koy lim daal ne gëm soo ne arkaanul iman ñaata la waa ji ne arkaanul iman sitta nga ni ko wax mu ne al imaanu billah mu yomb trop al imaanu billah gëm yàlla waaleykum salaam mbokk yi li gën a jafe ci ñun mooy gëm yàlla ndax yàlla moom mu ngay gëm foog nga foog nga xam moom yàlla nun koy gëmee ndax moom yàlla dafa am melokaan dafa am ay tur moom yàlla subhanahu wa taala dafa am lu mu bëgg am lu muy bañ misaal laay joxe nasaraan yi gëm nañu yàlla wala gëmunu yàlla gëm nañu yahud yi gëm nañ wala gëmun est-ce que ñett ñi jullit yahut nasaraan ñoo bokk gëm moo tax ngëm foog ñu jàng ko ngëmu diine ban ngëm la ñuy gëm ba du nuroog yahut ban ngëm la ñuy gëm ba nuroog nasaraan ban ngëm la ñuy gëm ba du nuroog mushrik ban ngëm la ñuy gëm ba du nekk nitu bi daal foog ñu jàng bu ñu jàngul ngëm yàlla yàlla mooy kan naka lañ koy gëmee dañuy jóg rek lu jóg ñu gëm ko fekk dafa jara jàng gëm yàlla subhanahu wa taala al imaanu billah waaye wal yawmil axir gëm alaxira ñu njëkk ñi raweewuñu lu dul gëm alaxira ñu njëkk ñi alaxira lañ ñu rawee gëm alaxira ku gëm alaxira doo ut dara ci àdduna waaw lu dul li la fi yàlla daganal nga jël ko ndax da ngay xam ne loo fi am alaaxira nga jëm démb dañ dugg ci armeel yi ñii ñibbisi benn mbokk na ma cëy mën da jaaxle naa mën a ko la mën a xoolal armeel yi da ngay gis ku judd kër-këri am alal bu dul jeex takk jabar am ay oto am ay kër di dajale nekk ci bis mu dee ñeenu ko yóbbu jàkka ja jullee ko yóbbu ko armeele suul ñibbisi anamu lii fi des léegi li mu doon kër këri kër këri yëpp anamu amatu ci dara lépp perte na ko ndeysaan yàlla nee na ni ngeen doon ñëwee àdduna indaale wu leen dara bu ngeen dem alaaxira du ngeen yóbbaale dara benn waaye nee na jiili mbay bi mu génnee àdduna dañoo jël 5000 francs lañ jël ci alalam 5000 moom ñaata xaalis la amoon ku ko xam fi amoon na wala amul benn waaye nee na 5000 lañ jël yóbbu marché te 5000 bi sax delloo si waat nañ weccit pour li ko war a yóbbu li ko war a gunge 5000 ci alalam 5000. ku dee fi mu nekk ni milliardaire bu dee 5000 la ñuy jël jënd ci percal jënd ci eau de javel jënd ci saabu jënd ci njàmpe jënd ci witeen jënd ci lat koloñ daal di delloo si weccit li nga doon rey sa bopp yëpp 5000 lañ ci 5000 lañ la ci dindil 5000 boo ngandee ba ngande ba punkal ñu jël 7500 waaw ndax dañuy yokk métrage bi dañuy yokk métrage bi la war a yóbbu yow 7 mètres dootu la doy ñetti sër dootu la doy ñetti sër foog ñu def ko juróom bu la juróom doyul ñu def ko juróom ñaar allahu akbar bu la juróom ñaar doyul ñu def ko juróom ñeent bu la juróom ñeent doyul ñu def ko fukk ak benn loolu nag gisaguma ko ku 9 mètres doyul gisaguma ko Sénégal de waaw loo ponkal ponkal dinañ la laxas ci ñetti sëri yóbbu surtout nag bu dee malikaan di nga ci xej de yàlla nee na ñii arrasixuuna fil ilmi nee leen benn wal muminuun wal muqimina alsalaa wal mu'tuuna alzaka wal muminuuna billah wal yawmi al axir ñii ñaata lañ ñaata lañ ulaayika ñii ñëpp sa nutihim ajaran azima danaa leen fay fay bu fay bu rëy allahu akbar allahuma ijalna minhum yàlla nee na ñii sa nutihim danaa leen jox ajaran fay aziman fay bu rëy loolu nag doy na si yàlla ne woon dinaa leen fay rek doy na waaye mu ne dinaa leen fay fay bu rëy yàlla na yàlla boole ci ñii mbokk yi loolu mooy darsu tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu amee ay laaj incha allah ñu gaaw